ahlan bikum Abdoulaye Sylla Ecotra takk der ya fañ koo xoolu déglu ko fukki waxtu allah l'observateur moo ñu ko xamal Abdoulaye Sylla ab homme d'affaires la ñu àndoon ak Macky Sall ci la bokkoon fa xam nag ay milliards yu bari takk der yi nag fañ koo xoolu ngir enquête ko ci ay milliards yu bari yoo xam ne ci or la bàyyeekoo buñ def ci ab avion jëlee ko Sénégal yóbbu ko bitim réew source ay yéen a kaay na ko Dubaay lañ yóbbu woon or bi moom nag fañoo ñoo njort ne mooy ki jëloon or bi dugal ko ca avion nguuru Macky Sall gi libération ne or ba ci ñaari junne ak juróom-ñaar téeméer ci ay kilo moom Ablaye Sylla nag fa weddi ba tëdd ca naaj wa li mel ne moom laala wucci l'évidence yéen a kaay ne hé fi mu ni caaxaan faaxee de reddition des comptes ñi dénkoon alalu réew mi fañ leen a tàmbalee xoolu ca yoon libération na ko faala ci yokkal xam nga Ablaye Sylla xoolu nañ ko démb déglu nañ ko bàyyi ko mu dem ñibbi këram waaye mën nañ kon ci garde corps yi jamono yu Macky Sall xam nga moom fañ koo jàpp ma nga ci loxoy takk der ya ba léegi jàpp googu ñu ko jàpp nag am na ci loo xam moo tax ñu oolu Lat ko dénkoon xana fan ko dugal ndax fa caa sàcc wala sàccut ca lépp fa koy leeral Dakar Presse yéen a kaay ne fi toll nii lukkat gi maanaam rëbb ñu sàcc alalu réew mi yëf yi fa tàmbali te am na yeneen dossier yu bëri yu ñuy waaj génnee leer laneen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi fa fas yéene dajee tey ak mboolem ku bëgg bokk ci wote yi moo xam ngay parti politique wala coalition parti lépp yëpp ngir ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu wote député yi ñu fas yéene amal fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre wii di ñëw ba tax si du quotidien ne état bi fa tàllal loxo opposition beeg ak mboolem ko bëgg bokk ci wote yi xam nga opposition bi fa ñoo génn démb di ñaawlu ne waxtaan amut concertation léegi état bi na leen kaay leen waxtaan rek ngeen bëgg acca te bu soobee yàlla wote lépp fay leer wal fajiri yéene kaay ne waaye wote député <laughs> Ndiaye feelu ko na ko waa Pastef yi kay ña waajal bu baax wote député yi te du yàgg dara fan yi fa ñuy génnee liste seen député yi ñi nga xam ne lañ bëgg a fal ndax Pastef nag fa ñuy dem ñoom kenn seen parti bi rek bañ a ànd kenn wala boog fa ñuy dem ànd ak li ci kanam rawul ay gët li rawul wal fajir yéene kaay ba wax ñu ko nag mooy ku jég politique gi bi ñoom boo moytuwut wote député yi duñ ci am lu bëri de ndaara lañ nar ah gën a mag ci opposition bi ku jégi moo ñu ànd nekk benn jiital kenn ñeneen ña topp ca loolu fay jafe ndax ñoom biir fa xam ñoo xam ne fa ñoo rëy duñ nangu kenn jiite leen am ñoo xam ne fa ñu màtt di ëf am ñoo xam ne ci ku jégi seen wax bëri na waaye amuñ benn mbooloo sénégalais yi duñ leen woteel lefe yéene kaay na ko faa wax lu bees Aly Ngouille Ndiaye taxawal na parti politique bu bees PSD njariñ te nee na fay bokk ci wote yi GP yéene kaay na ko faa ci yokkal yow tamit Pape Diop bokk gis-gis moom nee na fay bokk ci wote député yi pare génn gaal ga bala moo suux ba tey réew mi yéen a kaay ne ku jégi nag fukki fan lañ am ngir waajal déposer seen liste candidat yi ci wote yi Abdoulaye mbay moom fa ñaawlu Pastef di amal bés bi yéen a jox kàddu Abdoul Mbaye ne man faa musutoon a yaakaar ne Pastef dana continuer di def njuuj njaaj gi fi nekkoon Théodore Montey ne ñun daal liñ gis nii fay xañ na daal ñu ñi jiite nekkuñ ay démocrate fa ñu deltuloo ginnaaw suñu démocratie bi info yéen a ko hée yow toogal di wax opposition bi fa mel ni ñoom ñëpp d'accord nañ jiital Khalifa Sall mu nekk seen kanam ñoom bugaan géeg ñoom ñëpp topp ca gannaaw Khalifa ah seen ndaje ma de mu mel ni atel gii ñoom fa ñoo fas yéene nekk benn duñ tasaaroo de te su boobaa fa ñuy xam dara ci wote yi laa la wax lañ bëgg sax dëgg-dëgg mooy cohabitation maanaam yemoo ay député ak waa Pastef yi dëgg la naam Khalifa Sall ak opposition bi kàngam yëpp biñ leen mbuqee mbuqi métti ci wote njiiti yi ba léegi kenn déggu ñu wax waaye wote yi tax na fi mu toll nii ñoom ñëpp fa ñoo jógaat yow ngay wax lan indépendant yéene kaay moom fa ñoo xamal na njiiti réew bu Sénégal Bassirou Diomaye ñaar fukk ak juróom-ñeenteel bi yoon assemblée générale mooy ndaje mu mag bu mbootaay xeet yi di amal te président yi dafa jël kàddu kon na partenariat mondial ci wàllu éducation fa ñoo fal Serigne Mbaye Thiam ab conseil leer la neen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne jëwriñ ji ñuy wax ti jaan jéey fa demaatoon diiwaanu Kaolack ndàngaan ngir nemmeeku ji askan wa nekk ca mbënd ma taxawu leen ngir saafara seeni jafe-jafe waaye tamit fa demoon ngir xool liggéey ba nga xam ne dooroon nañ ko jëm ci wàq kanaal yeeg faxe ndox mi dem ak ci quartier yu bëri yi nga xam ne fa ñoo nekk ca mbënd ma regard yéen kaay na ci terrain bi gis na ne yëf ngay dox donte des na rawatina fu mel ni parcelle bongare coof ak mbàmbara askan fa liggéey bi ni mel nag équipe ba fa caa ànd ak équipe bu mairie bu Kaolack njiit la di sëriñ bu lii yéene kaay moom fa ñoo xamal ne ñi nga xam ne fa ñu jël seen mbaaru sàkket gattax morso taxawal ko def ca ay dëkkuwaay ca biir ndakaaru wala ñay fanaan ca mbedd ma yalwaan gu xaaj du jeex li ni mel fay dakk ndax jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi fa sant kilifa yi ñu daane dëkkuwaayu jaaru yoon yooyu yëpp seetal xar-xaramu ndakaaru ndax na mel fa ñaaw rawatina nag Dakar a organiser JO 2026 moo tax fi mu toll nii caaxaan faaxee ko loolu yëpp fa fiy jógee teral yéen a kaay ak li yéen kaay ñoo ñu ko yeggee ba ca le quotidien yéen kaay le Dakar waay yéen kaay moom fa ñoo xamal ne lépp xaalis ci banque yi fi mu fa métti torop ndax li ñu yokk ci taux intérêt yi fa bëri banque yi fa ñu rey rek le public yéen kaay moom fa ñoo xamal ne agresseur yi yore ñetti moto yi agressé woon waaja commerçant ba yoroon xaalis ba ca HLM te taximan ba foroon xaalis ba ginnaaw bu jàppee taximan si ci Sénégal ni mu bareeg la ca jaarut yoon ak naka noona garab yi nga xam ne fañ koy jaay ci xanam gu jaarut yoon ca Touba yi ni mel yéene kaay bi fa ñoo xamal ne gis nga pharmacien yi seen bopp xam na ci ñoo xam ne ñooy rey seen profession bi ñetti junneeg dépôt garab te ca yi ñu jaay ca garab yooya amul visa ak yeneen yi ni mel enquête yéene kaay moom fa xëy amal enquête ci li ñuy wax tatouage maanaam xale yi jigéen yi fa ñu jël seen yaram a rafet la warta feeñ professeur Boubacar Ali Diatta dermatologue ñuy utiliser di ko tatouer seen yaram wi mën naa joxe cancer bi feebar ndaw lu yéeme le public yéene kaay ne faa leen di wax lu ko gën a yéeme téeméeri junni yoon ñeenti xale tout tànk ñoom lañ fekk ñu faatu ñu dugal leen ci frigo frigidaire yii ci kër yi fa lañ leen rokkas dëpp leen aay yëf yaa nga amee ca réewum nami bi <laughs> waa ma ne nami bi rek la mën a xamee de waaye loolu koy faa foog ne ñi mu taxam Sénégal fañ leen a rey de dugal leen ci jublu a def